ginnaaw bu ñu tàggoo yàlla dañuy julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad di sant Serigne Touba lii dafa di loo xamante ni dafa war képp kuy kuy kuy kuy dox ci kaw suuf waxuma jullit waxuma chrétien waxuma sax juif ak ñëpp parce que ñëpp fii la ñu mujjee te loo xam ne xamoo kañ la xamoo nan la xamoo fan la waaw mën nay waajal daal te ñun dañoo. def suñu bopp ay taalibe sëriñ Tuubaa bëgg ñu lu dul sëriñ Tuubaa yaa ngi dégg te moom ku ko xam xam ne ci yàlla ak bi la tënkoon léppam ba suñu borom defal ko lii mu am tey ñun bu ñu nekkee ko euh, bu ñu judduwee fekk ci suñuy suñuy baay ak suñuy maam ñu topp yoon boobu mënuñu lu dul ñëw saxal loolu li ma doon wax la léegi nag di dafa di loo xam ne am na am na woote waaye amul xaaral ndax nekk ci yoon wi rek a wóor boo nekkee ci yoon rek neex a yóbbaale waaw tey dañ koy démarrer mu metti man a chaque fois damay def ay snap man yàlla lii la ma nattoo ja lijjante ay ay berne jox ko jaamu yàlla yi man lii la ma suñu borom nattoo. léegi mënuñoo jàpp ni chaque at da koy def. du chaque at lépp fépp foo am xew-xew man jàpp naa ne war na maa mën a yóbbu benn bu amaatoon suba tamit ñu dem jaayante waat indi waat ñun noonu la ñuy doxee xaaruñu at xaaruñu événement dañuy xool rek fépp foo xam ni. góor yàlla ñu ngi fay dajale di di sunu borom ñun jàpp nañ ne war nañ di leen mën a taxaw ci côté bi bi ko yëgee ndax ku ne sa sa doole rek ngay def ñoom am na ñuy dugg sur le terrain di di bay xëy na amuñu dooley poos pour mun a fàggu ay xéwal waaye tey man it suñu aw ma dooley poos gaa mais am na tey loo xam ne sunu borom defal na ma ko bu ma woowee nit ñi dinañ ci jàpp loolu ñu may jox may dajale ci góor yàlla yi booleeg li ma woo samay mbokk ñu ñëw taxawal ko defar benn day jox leen ko ndax naaj bi tàng na te ñi fi ne ñëpp amul kenn koo xam ni sa mbokk moo la yëkkati wala dara dañoo ne dañuy defar ñoom ñëpp bàyyi xooluñu ku fi am mbokk ku fi amul mbokk ñëpp booleandoo ñëw jàpp ci liggéey bi pour mu jëm kanam moo waral ñun ñu jaayante ñu nit di xool ndox meew suukar café mburu lu ñu am dajale indi jox ko ñooñu di ñaq di liggéey ngir yàlla ndax ñii ñuy liggéeyal xam nga ni ñii ñii tëdd ñu seen bopp dara waaw te ay jëmmi jamono dañoo ne yoroon dañoo meloon ni ñun di dox di dem doxi seeni soxla di faj seeni soxla tey nag bu ñu demee ba tëlle ñun ñi fi suñu borom bàyyi te suñu fulla taxul ñu bàyyi nu fi suñu jom taxul ñu bàyyi ñu fi ñoom it ñàkk jom taxuñu ñu dee ñàkk fulla taxul ñu dee suñu borom moo tracé ay mbiram noonu ñoom ñu jiitu ñun ñu fi des nag dañuy rafetal ba ëllëg ñu leen di fekk ji te ndax bu buñ leen fekk jiyee tamit bëgg nañ am lii ñoom ñu am tey waaw nit nag boo bëggee bu ñu la fayee nga kontaan da ngay leb la lu baax waaw di profité nag di sant ñi ci jàpp waaw ku ci mel ni gàmm ba ma ko woowee sama benn Baye Fall moom côté Biros Doro bi dama ne lépp loo soxla ci mburu fin ole bul jënd dara woo ma tey damaa yow dem Biros Doro bi mag sama gars yi ñu jox ñu mburu ba mburu yëpp moo nu ko jox ah gars yi itam jàpp ci ku ci mel ni Doro Gueye PDG ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën a dëgëral taxawaayam waaw Malick la mu booleel Malick jox ma xéwal yu bëri ñu dem fàggu xéwal yi indi teg bu ñu limee rek dañuy jum mais am na ñoo xam mun ñoo ñàkk ndax ay kilifa lañ ba pare du duñu xeebuñu daray kenn barke maam Cheikh ah, soxna ay dara soxna Suwaali moom it démb ci ngoon laa ko wax mu jaayante ne lool loolu lu rafet la ndax ku ne xam na ni coon sekk a ngi fii tëdd di di di bàyyi mu sawar ci lool ñu ne ci waar wi waaw di ñaan yàlla mu jëm kanam daal. aussi tey bu ñu gis la exemplaire nga parce que lii nii ah, am na ñoo xam ne tey fi nga taxawoo nañ fi mën a taxaw ñooy laaj kon ban message ngay joxe comme ah, comme ñu mel ni ñëw yaa xam ne dañ leen soxla fii pour yii xewee ñu leen fi fekk wala ñu leen ciy gis ñu ciy bay seen waar. waaw mooy li ma la wax la rek ku ne ci yoon rek neex a yóbbaale te xam nga àdduna dafa tëre di tey ku jàpp ni jomb ngaa taxaw fii yaa ngi ci erreur fexeel ba nga na nga am fulay jom mu tëdd fii. waxaata li nga waxoon am na solo. ku xalaat ni jomm naa taxaw fii di def lii ñuy def. nanga fexe ba am fulay jomm ni xalaat ni jomm ngaa tëdd fii te fii du kenn du ci rëcc de. moo xam fii la. moo xam Touba la moo xam Saint-Lazare la moo xam bel la. foo waay mën a ne. te aussi tamit ku nekk tëdd na fii. ku ne ku nekk a ngi fi am xamoo kan fi ne xamoo wàllu a ngi fi lépp ngi fi. ndax mbiru suñu borom dafa doy waar te ñoom lan ne ñun xamuñu ko kon nag am na loo xam ne c'est la moindre des choses lii lañ leen mënal lii lañ leen dese man sama maama ngi fi tëdd bi nga xamante ni moom laa xam muy alaaji Doudou Dieng di ko ñaanal suñu borom jéggal ko te te te yokk leeram ci barki Cheikhul Khadim ak mbooleem jullit yi mu fi fekk